Bienvenue sur Salam Vision. Andoy bëre na ak Modou Anta. di nuyu Abdou Xarañ Mame Balla Gaye moom lañ toogal ci plateau bi. tuuti yaay Sarr um soobu Garga Serigne. fa seen commande la commande. arbitre sifflé na Jamaïcain. Malick Ngom sifflé na diggante Modou Anta ak Diène Kaïré. Modou Anta moo nekkee droite. Diène Kaïré Modou Anta Modou Anta ngi dox noonu. Diène moo féetee gauche moo ñëwoon ginnaaw Diène Kaïré. Modou Anta lan la teg nii wala gauche. Diène Kaïré moo féetee droite léegi. lan la teg ban pied gauche wala droite. non Diène Kairé pied la teg. non Modou Anta laa xaaral xaaral. Modou Anta droite la teg. droite la teg. Diène Kairé teg gauche. waaw. fausse garde ak garde normal. Diène Kairé daana am jafe-jafe ci xeex ak pied droite. Anta Diène Kairé ñu ñaari mbër yi tolloo bokk Medina bokk Thiès bokk Sénégal. ñoo ngi leewaatoo ba léegi dara amagul Diène Kaïré Modou Anta Modou Anta ngeen jekkaar lool Jamaïcain Diène Kaïré moo ngemboo ngembu wax si bi Modou Anta moo ngemboo ngembu bu weex bi jàkkaarloog ñun Diène Kaïré moo takk yi vert yi waaye lu waay gis lu waay xamante xamante boo gisee suivre seen affiche point com jam lu waay xamante xamante gisee nen ni nee na ngi réew mi waaw Italie Diène moo ñu féetee ginnaaw waa Dubaay Diène Kairé moo ñu fesee ginnaaw. réew mi xam nañ Modou Anta. waa Belgique waa France waa États-Unis fu waay mën a nekk ci diaspora ba léegi dara amagul Lamine di nuyu sama maman Roxi Malick Lo maa koy siyaar bu baax a baax a baax. waaye ba léegi dara amagul jamee koy nuyu bu baax a baax a baax jigéen di man góor bu la ca kàddu Roxi Malick waaw ñu ngi koy bégee. di nuyu njabootam yëpp. Diène Kairé Modou Anta. nga ni Diène. ni mu taxawee nii bu ko bàyyiwul dina dem. nga gis waaw. nga tànk bi si kanam teg a dëru si. da ko da ko bàyyi pour dem soit day dem pour song wala mu dem dóor. Lamine mu bëree wax ak yow waaw Moussa Ndoye mi bëree benn bëri bi may wax ak yow. fi mu ko teg noonu maa la ko wax. dafa mel ni moo daan dara koo bëgg a yéen combat bi nag. bëgg a yéen combat bi. su mammee dafa fekk dara de boo xamul li muy mu tegee tànk bi dafa dem pour song wala mu dem pour dóor mais jéem si dem la jëm. garaaw. la muy saf ku ko macca ko xam tam tam Moussa Ndoye da koo macc. su ma juumul yaa njëkk yaa njëkk daan mu maa ko njëkk daan li muy dafa am tuuti lu ne si man nekk si xale bi sóoraal da ko sóoraale si boppam sóoraale mbaru tefes dafa am la nga xam ni day ne si ñoom lan la benn caacaay xam boo dee ñëw dinañ xam li ñuy def ak dafa mel dafa bëgg a diriger combat bi dafa dem na lamb de yéen Kayre fils ma cal suukar li ci yéeme mooy jën Kayre ci kanam mu nekkul ci géew day nuru ragal te dégg naa mu fit ci réew mi jën Kayre Modou Anta cey Modou Anta Cees nooyeetuñ pencum Madina Fall yow la ñuy déglu nga libéré waa waa Thiès yow la déglu nga libéré leen Modou Anta waa Kër Ndiaye loo waa Medina di déglu Diène Kaïré Baba Diaw foo féete ma sama rakk la nee na combat bu am ma sol ma solu génn bi wàcc bëre leen balaa balaa Malick di wax ak yéen géew bi yaatu na tagg yombul fi def leen li leen war amateur yaa ngi ah. loxo ma ne ko sànni na. Moussa Ndoye Moussa Ndoye jën cokkaas na Modou Anta. jën Diouf Kayre moo cokkaas Modou Anta noonu. xel lay Moussa Ndoye di bëre instant bi xel. wala wala boog Modou Anta xel lay bëre instant bi. vigilant bu baax si combat bi. par rapport ak combat yi mu daan ñëw di la wan ni la maa la doole maa la mën maa ma la jën. li ma la jën dara du ko dindi. taxaw bi mu taxaw ni day songi day dox si Modou Anta. jàppante nañ roofoo dóor dóor na benn épercule Modou Anta jàpp lay wër sa ngemb jeen sol na ko benn loxo bi jeen sol na benn loxo Modou Anta ngemb lay ko benn loxo bi jeen juf kayre ngi naa roofoo nañ ñaari mbëri jeen kayre Modou Anta di ci nuyu Ousa Sow depuis France Ousa ndeysaan yàlla sa jàmm yàgg Ousa Sow fi mu téye ci téere mbagg yi la téye ndeysaan dañoo jàpp sama xel dem ci Ousa Sow bëre woon na fi ak ba mu téye moo koy jën day takk wala boog Modou Anta takk lay bëre su moytul dina sori ci jënde jënd téye ngemb ah maa bi Modou Anta li muy ut moo koy njëkk a am am na ngemb jën dugal na loxo moom tamit Modou Anta rasu na jën juf kaay rek leen wan ginnaaw expérience contre ñaari mbëri roofoo Modou Anta ngoy jaay xelu mag jàpp na ngem ba pare xañteen kayre ngemb waaw est-ce que wéy est-ce que wéy la fàq fàq fàq mën am fii fàq ce que mën naam am fii Moussa fàqat mën na am fàqat mën na am waaw bu fàqate am Modou Anta moo mën a fàqat moo jàpp position bu fàqate waaw Modou Anta jën kayre Modou Anta ni mu takkee ngembam du neex a jàpp Lamine mais ni mu ko nengee tamit pour mu fàqal ko foog mu dindi bopp foog mu dindi boppam foog mu dindi boppam teg ko si épaule bi position bi arrangé wul seen kër jàppante bi ndax Modou Anta na ko ndengeñ te ndengeñ bi bu yàggee da koy sonal doon maay moom jën kër fu mu digal loxo dama dindi ndengeñ dañ ko interdit woon ci làmb ji ah, ci bëre simple bi lañ ko interdit même bëre door ah ndengeñ nag mën ta ñàkk waaye ndengeñ ci bëre la bokk Modou Anta ak jën kër ndax du ko takk jën koy fàq eh, eh. jën a koy kor kor na ko door na ko Den Kaïré am na njëmb da koo dóor na ko siggil ma jàpp Den Kaïré Modou Anta. caxabal caxabal caxabal kal kal kal kal daan na ko. laa ilaaha illallah. Modou Anta Den Kaïré daan na la Den Kaïré daan na Modou Anta. Den Kaïré daan na def na yëfu jala def na yëfi naanan ma ngay daw Modou Anta ngay daw. def na yëfu laa ilaaha illallah da koo bàyyi bëri bi mu daan ko. def na yëfu ndaaran bàyyi naa ko ak lépp. mu daan te. jën moo mu daan ko. jën ah, moo daan. jën kaara def na jaloore. jën kaara bëri daan ah, am na ku ma waxoon ne ah waaw. di ñaanal ñëpp jàpp. Lamine am di woo waaye rax yëpp. di nuyu ñëpp. di wax ni di wax ak Assane Ndiaye ak euh, Ndiogu combat bi seen combat la di woo monsieur le maire Babacar Mbengue honorable député Fatou Diouf woo waaye rax yëpp waa Kër Mbaye ma kenn woo ñëpp ñu ma bokkal fukki penc ak ñaari ñi lay jàppale ci diaspora bi woo leen ñoom ñëpp instant bi fii rek lañ koy ame waa diaspora bi ma kenn Serigne Ndour Papa Ndiaye Ala Ndiaye Madiop jaw Papa Diagne Doy bàyyiwuma kenn ñeen waa jàpp diaspora léegi ñu dem ci bi nga jàngatal ma combat bi nga woon ma nu ko daane waxal waaw jénkeere gis ko bi ma la na dindi loxo bi si la loxo bi génn si la ko daw fàqat dóor gis nga ko dëgg mu xaw mu Mor Anta wéyle mu remplacé ko boo xoolee lii am na sama combat ak Mor bi mu doolee dugalee wéyle dama ko remplacé li mu ko remplacé demi fraction bi mu am doole si la jën bëri si la jën bëri moom si la mu daw tëkk benn sunu mu daw topp ko. da nga kal rek dàq. da nga kal dàq ko a yàlla na jàmm yàgg jërëjëf. kontaan naa ci Bienvenue sur Salam Vision.